ñibbi na la ilaha seen si nga xamante ni mooy Salam Vision dëkk la ñu am tey li ko koy sabab tax mooy jotaay bi nga xam ne fas yéene ko am ak suñu mbokkum taalibe suñu xarit suñu wëllëre waaye am na jàmm waaye société boo xamante ni bëgg nga boppam bu bëgg nga boppam wala boppam itam ci li muy yëngu ci biir émission bi nga xamante ni mooy tekki fi nee na daal leen tekki fi ni ngeen ko déggee mooy judduñu daal dañ leen bitim réew judduñu yëfu jàmbur agressé wu sàcc ñu fenn ñu dañuy xool suñu baal suñu doole ñu ko bëri dafa am ñu ko bëri man mën na doon dërëm boo xam ne dërëm bu baax lay doon ñu mën cee jëriñ suñu bopp di dëriñ ci askan di dëriñ ci nga xam ne moom ñu ne la la booleel parce que ay ñu dalal suñu wóolare boo xamante ni macha allah war a ji bu ñu ñëwee ba présenté di ngeen xam ne wax dëgg yàlla euh, yaakaar lu sonn ci ni ko nasaraan bi nga waxee ñu gëm nañu yaakaar lu sonn ci li métier mu ci nekk rek doomu aadama war na ci mën a jëriñu rawatina ci suñu liggéey bi nga xamante ni kenn ku ne xam ne ni métti na jaxasoo na rëbëloo joon waaye nag gëm sa bopp gannaaw boo gëmee yàlla gëm sa bopp ak sàkku ñaanu waajur yi day tax kenn ku ci nekk mën a ci jëlee loo xamante ni ñu ngi ci tey ñu fas yéene ànd doo koo xamante ni wax dëgg yàlla moom moo yor monsieur Soli di jub ay frère ma fas yéene ànd moom ci biir jotaay bi waxtaane ak moom dina la xam ne métier la waaye waxtaanee ak moom dina la xam ne bi macha allah rabbi mooy xew-xew yi am ndax nit yi boo gis am na am na am na ay li tubaab di wax yaadee ko yaadee baax am na ay gàllankoor am na ay métti am na ay natt waaye tam am na bànneex bu ñu xool boo leen limee daje leen dëgg dëgg dëgg dëgg bànneex bi moo ci gën a néew macha allah wax bi ñu def dara ñu ngi jëkkante wax bi dalal suñu gan suñu invité tey ci biir plateau Salam Vision Diouf Boucher ñu yàlla jërëjëf Sam et frère maa ngi lay nuyu di la fay. di nuyu ñi seeraan. di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal. waaw di nuyu àdduna. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. di jël nuyoo ñoom di ko tasaare bu baax. di ko teg sa loxo. jàmbaar bi fay naa la. dégg ngeen ko noonu ndeysaan moom bu defee na ba delloo ñu ko ndax waaw bu jur fexe ñu delloo ñu ko naan waaw salaam di fexe macha allah waaw salaam vision lay day day daje boo xamante ni jàmm nga ànd ak gis-gis da lay doon jàmm nga ànd ak gis-gis ku ko wax xam ni jàmm mooy lépp te gis-gis dafa naax ci doomu aadama macha allah mu doon am solo dina naan yóoyoo bi dina naan fas yéene tam ak rajo salaam vision ci loolu réseaux sociaux yi nga xamante ni ñu ngi fi war a waxtaan ko ba tasaare ko xam am na wër def ko benn ko ñàkk jot ci mais li mu li may def rek mooy pour ñu waxtaanee tuuti ci wàllu yi nga xam ne mooy tey jii bala nga mën ci problème yi nga xam ne ñu am ci biir Dagana bi ci biir Seras si ci biir Foirail yi bi ñu ci ñeneen nekk tey jii benn conséquence bi ngeen ko bi ngeen ci dund tey parce que bu dul ne tey ñu ne ñu ay bandi

métier bi nag dafa nekk métier boo xamante ni soo xasee ba dugg rek siw nga waaw yow yaay sànni sa bopp mais da ngay gëm muñ xool sa kanam loolu rek la. léegi tey ñu doon laaj fii rek ni nga ko waxee tey jii métier bi doon nañ la ci moom dootu bi léegi si ma daal dinañ la dëkkal fu ne waaye tey jii yow sa pas-pas sa gëm ak sa bëgg ak sa yéene mooy tax ñu mën a mën a yëngu si ci li nga xamante ni yaa yaa ngi ci. ci mesure boobu noonu est-ce que ci mesure a doon. Mm-hmm. tey jii est-ce que yaa ngi ñoom tam leen di jëflante. waaw dañuy jaay ndawal. dañuy jaay lépp dañuy jaay yàpp xar yàpp nag. Mm-hmm. ba gileem. Mm-hmm. tey jii nii fekkee da bëgg nag boo xamante ni day dund sax ñu dem di jënti loo ko indil loo ko feesal la ko. gileem bi tamit noonu. Mm. ak xar bi dañuy mm. jaay ndawal nag dañuy jaay lépp mais soo bëggee yàpp nag mm. soo ñu woowee ñu indil la ko ba sa kër ngee livraison à domicile waaw ñu ngee teg teg dañuy dem fépp lépp loo soxla rek soo ñu woowee ñu ngi indil parce que li sama laaj la ko def loolu ci dem koo xamante ne dañuy gis ñoo xamante ñu ñu ngi déplacé soxla ndawal ba nag wala li ñu soxla moitié a gën a gën a. waaw parce que mënut a ñaaw am na ñoo xamante ni du ñu mën a ñëw hmm. dañuy toog woo la téléphone léegi yow da ngay indi loxo su fekkee dañoo bëgg jugo hmm. wala épaule wala profilé. lépp loolu leen bëgg rek soo ñu waxee dañ leen koy indi si anam bu sell. waaw si parti xar bi tamit noonu soo bëggee mu wàccee xar war a kaare war a ànce soo ñu woowee tamit dañ la koy indi ak fépp koo munti nekk te prix prix tamit non prix kañ moins cher. waaw avec ça Saliou. tout est possible. waaw moom Saliou nga càkkante ne moom moo ma jàpp ko loolu yërmande la woon te wax dëgg yàlla lu nga gis xam ne wax dëgg yàlla am na fële Serigne Saliou toll macha allah ñu ñu ñu ñaan sama borom yàlla yàlla fekk ko daal suñu ci barkeel ma te yokk leeral yi dafa mu tëdd macha allah rabbi ndax kenn loo wax ñu jàmm wax dëgg yàlla euh, li ma wax naa demoon def koy fàtte dem safara defe naa ko bu demoon tey moom defe naa ne war naa mën a bàyyi xel sa bopp am am loolu dem ci sa bopp macha allah rabbi léegi tey jii bu ma xoolee banditisme bi ma wax nii séerase nee nga ma xam man xam naa loo xamante ni gis nga ko jox koo ci ak ñoom ndax liggéey bi ma liggéey tax na feneen fu ci ne dama fa am ay branche te dañ ma gën a mooy ñemal ñii ci ñemal di ci ëpp ne moom fekk ñu fa wala liggéey ñu dañ koy xalaat yéen naka ngeen nga ba koy am. nga baal ma wax affaire banditisme moom fépp la am. mais Seras. Mhm. tey jii nii ku fa xeex. Mhm. baa nga def fa naka su dul noonu dañ lay alamaan. Mhm. da ngay toog ay weer doo liggéey. waaw xeex amu fa banditisme amu fa ñu fa nekk dañuy nee naa la ay jeunes la ñoo xam dañu bëgg a teral seen i waajur. ñoo fa nekk Seras. te jeunes yu fa nag dañu gëm seen bopp. waaw ñun kenn duñu woo si lu ñàkk fayda ñuy néew di dem. Hmm. non kenn ñebewuñu loolu sax ñun soo ñuy woo dañuy woo si loo xamante ni lu am fulla la ñu ñëw. Hmm. mais pas ñëw xeexal maak lii noo loolu amul seera. Hmm. wallaay azim ñu fa nekk ñëpp dañuy liggéey gëm seen bopp ku gën tuuti soo ko laajee danaa la teral sama yaay moo tax ma dugg si lii te barke alxuraanu karim seeraas ku fa gën a ndaw. moo la gën a gëm boppam waaw ñun liggéey rek lañ xam mais tur bi nag turu seeraas moo rëy am na ñoo xam ne fu ñu ko déggee da ñu tiital mais seeraas jàmm rek la ak la paix wallaay man de xam naa ci xam naa xam naa ci dara xam naa ne jaar naa fa bataay ba suba teel ñoom fi mu ne fekk gars yi taxaw nii a teel ne

alal alal àgg na que tey waaw parce que tey jii nii seeraas boobu noonu soo ko nekkee faaw nga am benn carte boo xamante ni moo lay wane ne yow yaa ngi biir seeraas ba pare ñun dañoo mbooloo nekk benn nekk benn fay. waaw li ko baaxaale di waxee rek dañoo mbooloo doon benn fay tey jii nii soo laalee kii rek da laal ñax des.

waa der yi da tey jii daa am ñoo xamante ni dañuy ñëw jënd si ay conteneur hmm. ñoom lañ koy dajale ñooñu après ñoo koy yóbbu hmm. waaw moo waral ñuy wër di dajale der yi di ko yóbbuwaat seeraas parce que tey jii am na ñoo xam ne ñu ngi Europe dañuy soxla der boobu noonu dañuy woote bëgg ay conteneur hmm. pour ñu charger leen ko indil leen ko der yooyu ñooñu répliqué waat suñ ko liggéey mooy doon seen urée ak saal nit ñi di ko wax ci lu jëm ci biir séeraas yi nga ne wax dëgg yàlla nee naa tey a yaroo ko sa biir kër séeraas da koy daal jëlee wala xooraa wala ñu ne naan ci moom donc ñu ni tey ñu ngi nekk ko di ko liggéey benn question boo xamante ni tam day faral di jafe si ñu doon ndax nee naa am doon ndax yow wala ñu ni di jaayee am ko est-ce bien sûr parce que tey jii nii soo ñëwul su fekkee da ngaa ñëw que lu dugg di tege boo duggee li ngay gën maanaam ay boo xamee que ñu nekk nekk. tey ñu nekk si mbedd bi am na ñoo xamante ne dañoo yor place mais amuñu emprunté dañuy obligé génn si biti di góobu client yi dem jaay leen seen ndawal mais am na ñoo xamante ne tamit amuñu dañuy ak sonn ñoom foofu noonu dugg si biir jeexal wutal la. tey Maodo laaj nekkee gi man mën naa ne moom lañ ma ngénte ndax sama maam sama maam moo fa nekkoon sa ñaambur ñëpp dégg nañ ko waaw moo nekkoon seeraas tey jii ku fa yoon ndawal moo la jox ndawal ñenn paa yi bari moo leen fa teg seen place nekkoon Sandaga tamit fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana fiir daw si kooku moo jur sama papa. tey jii mun naa ne man si xaalisu ndawal lañ ma dindee. waaw. kon ma jaay perte. xam ma waxoon rek ci des mbokku bi daal naa dinaa fi am na loo dem dem la jox ma ci mayaay bi ñu fas yéene cee wàññi ci guddi gi rek daa leen ma jógee rek ndax waaw ndawal moom kenn bu ne bëgg na ko ko bëgg bëgg lu baax tey jii nii balaa ngay def dara sa xel bi si njëkk a nekk mooy ndawal. waaw. mais tey jii soxla xar. ah su fekkee nag ñun buuse yi foofu la ñuy nekkee de. añ moom suñu kër soxna yi dem añ ah des ñu yóbbu alwaayam. des fois ñu dagg si collet bi yóbbu suñ demee soxna si gis moo xool mu koy togg mais ñu moom li ñu ndékkee ñu moo si nag waaw dee xar des ñu dagg si jigo bi wala bi mais lu gën moom mooy faufilé bi. waaw tey jii nii am na ñoo xamante ni dañuy lekk yàpp xar bëgguñu yàpp bëy am na ñoo xam ne dañuy lekk yàpp bëy bëgguñu yàpp am na xam ne bëgguñu bëy bëgguñu xar nag lañ bëgg sans départ ak si client mais lépp am ko parce que nit ñi di taam non am na différence parce que da nga ne xar na bëy na nag waaw différence bi laa bëgg xam bu nekk ak yow xar bu ndaw año boo ko toggee soo ko toggee mu dellu mais xaru 15 kilos 16 kilos soo ko toggee du dellu du dem fenn. ci benn xeetu saako def euh, waaw soo ko daggee tey jii su fekkee da jënd xar. nga dagg ko hmm. xar. soo ko jëndee lewatal ko lewatal mooy soo ko rayee ba pare soo ko lonkee poids bi day wàcc ndax deret bi day fenn waaw su doon def quinze kilos def quatorze kilos léegi soo ko daggee day perte mooy waral poids yi di wàcc. da ngeen ko jëlee est-ce suñ ko rayee lewatal ko noonu ba pare li ñu si mën génne mooy der yi jaay der yi moo ñu delloowaat suñu xaalis. su fekkee nag bi la foie bi ngay jaay. na foie bi da ngay dindi à part dem jaay ko. léegi ki ngay jaay yooyu noonu ak der yooyu ak tànk yi mooy lay mën a fayaat sa xaalis ak mais ndawal li moom gisuñu si à cent pour cent est-ce ko génnuloo mais daa nekk amul boo xamante nii yàlla moo ñu ko séddee ñu nekk si dañu nekk si liggéey bi di si liggéey non wax dëgg yàlla su fekkee wàllu ndawal moom amaguma lu ma fi ma si gën a neex mooy sant Serigne Saliou Mbacké waaw ndax tey jii nii su ma su ma ñëpp déggee si ndawal mun naa ne ginnaaw yàlla Serigne Saliou la waaw loolu ma gën a neex parce que man tudd na Saliou Pape Matar laa tudd mais tey jii ñu bari xamuñu tur boobu noonu waaw ñu bari Serigne Saliou lañ may woowee di sant yàlla bu baax a baax ndax bëgg gi ma ko bëgg barke borom Touba. Euh, macha allah la nga que. bëgg bi man am naa lu soo ñëwee Seras doguma la soo ñëwee Seras. Hmm. soo nee kenn du la xam. kenn du la yóbbu. Hmm. mais soo nee saa Saliou. Hmm. ñu indi la ba si man. kon loolu sant ak sant Serigne Saliou Mbacke baax baax.

waaw hmm. bu ma bu ma ne ñi lay mooy. Hmm. tey képp koo xamante ni da nga bëggoon ñëw seeraas di dute wala di ragal man soo ma wooyee ma indil ko ba sa kër di leen wax ne nag seeraas jàmm rek a fa am waaw seeraas leneen amu fa lu jàmm man moom message bi ma lay lancé mooy ngeen gëm te bëgg man ku ma woo ku ne ma indil loo ko sa kër ba foo munti nekk Eh, te soo ñëwee ba Feeraas tamit jàmm ngay am. waaw ndax Feeraas moom ñuy dóor waax da ka fa nekk. comme lu ma la wax sànq rek si biir wax bi ñoo xam dañoo bëgg a teral seen waajur. barki borom Touba. sant Serigne Saliou Mbacke. waaw santaat Serigne Saliou santaat Serigne Saliou bu wér a wér. waaw ndax man moo ma def ki ma doon. barki borom Touba fépp fu ma taw dama koy wax. suñu woon ak moom tey amaan mën naa doon leneen. Mm-hmm. mais maa ngi sant Serigne Saliou bu wér wér di la sant yéen ñii. waaw di leen sant bu baax a baax di leen ñaanal seen liggéey bi jëm sa kanam barke borom seen Serigne baax Mbacké teg si loxo si barke borom Touba waaw di sant tamit ñëpp waaw di leen wax ne mi ngi noonu ku soxla na nga woote 77 054 37 41 78 251 77 09 waaw sant yàlla wér-wér jaajëfal ko bu baax a baax a baax a baax moom li nga xamante ni moom leen dalaloon tey ci suñu jotaay bi nga xam ne mooy suñu émission bi nga teg ñaanal ñu def daal nañ di ko dund xaaral suñu bàtt bi nee naa bàttee na fa fort te kenn ku ne bu déggee ci biir suñu baax bi ci wala xale dara na bàyyi aadama wala mu tax ba di asaloo ak ñoom kon ñu ngi asaloo suñu baax da ngay tuddee jeunesse bi góor ak jigéen mag ak ndaw dinañ leen gën suñu bopp xam buur yàlla may may buur yàlla may xëy buur yàlla moo di baax nañ am pas-pas am ngëm te nekk li ñu war a nekk rek teg ko ci yoonu siraatal mustaqim teg ko ci fi nga xamante ni fa lañ ko war a teg muy nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla fonk waay yi te tegu ci yoonu siraatal mustaqim allah kulli aar buur ci gën a feeñ boo xamante ni dinañ ci mën a jëriñoo ñuy santaat bu baax a baax a baax moom Pape Makhtar waaye ñu gën ko xam ci Sall Sall yi maanaam Diouf et frère macha allah rabbi di wax ne rek internet bi yàlla yéen ñu suivre à travers Salam Vision dégg ngeen li mu wax gis ngeen koy tam moom li ko wax te lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko ci wàllu ñu jëm ci ndawal ci maanaam ñu ci mën a doon incha allah boo ko ci woowee liñ ci xam ci lépp loo xamante ni lu mën a baax la wala lu mën a jëriñ la dana la ko ci wax lépp lu ci doon dalal koor tamit dana la ko ci wax lépp loolu moom la leer bu la neexee mu déplacé wu toogal fa nga toog moom li nga soxla nga wax ko mu jël ko ko sa am loo xam ne dama ko bëgg a wax hmm. jeunes yi nañ respecté seen waajur yi bu baax a baax te déggal leen hmm. waaw tey jii man mun naa ne ba ma duggee si buuse bi def na sept ans huit ans hmm. mbër laa dama doon bëre mais sama papa daa ko woon ba may bëree dama doon naxtaanteeg moom. Hmm. ba muy dund. may naxtaanee moom di bëre. Hmm. ba ni mu génnee àdduna fu mu tëdd yàlla na ko bul yàlla yërëm xaare ko ak kullu ku fa nekk. Hmm. nag ma xam ne kii d'accordut ak man. si bëre bi. ma bàyyi bëre bi. ndax tey jii su ma doon continuer damay teggi waxam. tey bugguma teggi sama waxu waajur. bàyyi bëre bi dem dugg si métier. lii tey di wax jeunes yi nañu respecté seen waajur yi bu baax a baax. ku si am waajur bu góor na fonk ku si am waajur bu jigéen na nga ko fonk. sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla suñu doon soxna waxtaan yàlla boobu ko taxawu boo leen di taxawu bi yoo xam ne ñu jëm boo xam ni ko xam moom bu tëj bu mu jàll wala borom nit mooy am sax nit mooy nit tamit mooy gëm boppam daf tax loo xamante ni doomu aadama léegi mu gëm boppam gëm ni lii mën na cee jëriñu mu mën koo jëriñ kon sant ko bu baax a baax sant boole koo xamante ni yaa ngi teew à travers la vision di ñaan kenn ku ci ne lay bëgg ak mébétam ak yéeneem suñu borom bi dul jeexal dara yal na yàlla dul jeexal ñoom ñëpp ñoom di Seydina Mohamed Aïssa Oussala jox leen liñ tëjee incha allah wane ci beneen bi kaay ak seen émission bi nga xamante ne mooy tekki fi tekki fi nag bu ñu ko waxee mooy kenn ku ne mën naa ko ci biir réew mi waaw génn ci boppam ba mën a gën a am boppam ak gën a wax askanam yàlla jeexalul dara sant bu baax a baax mboolem ci technique bi nga xam ne ñoo leen taxaw waaye sant sant bu baax a baax mon directeur à moi personnel waa jaay sama copain sama ami sama xarit nit ku fonk kàddoom. Fapal bàyyi Fall la nit ku gëm boppam. macha allah yàlla yàlla defal ko daan taxawu ko xaw ma leen jëlee waaye sama sant bu baax a baax sama doom nga xam ne moom la fi moom bokk ci kaar ci kaar bi nga wax dëgg yàlla ci kaar des bagages bi macha allah nee naa ko suba nag boo xëy sa sa ci rek incha allah wala mu yëg ci bëri noonu daal. lii kat it incha allah wala bi tàlla ci beneen bi tàlla seen émission bi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Serigne Saliou ñibbi na la ilaha illa